Demba Sow dëkk Thiès quartier Cité Senghor nekkoon daaree Kocc daaree Kocc nag def naa presque vingt et un vingt deux ans ah yàlla dogal nag daaree Kocc. naka nga duggee daaree Kocc d'abord. daaree Kocc dama nekk EGCAP bu Dakar signé fa contrat ci chantier yi ñu yóbbu ma kër Jili Mbaye bi ma yee Tafa Diop architecte la moom bureau mi ngi ci kaw ma gis ko ni ko dama bëggoon nga recommandé ma ma dem daaree Kocc bokk. moom du problème bi andee. Tafa Diop bind benn note maram daal di ko fekk leen répétition ñoom ñëpp ñoom ko jógee ñëpp ñooy bàyyi pël nga fa yàlla dogal bi ma ndikkee wax ak Cheikh Cheikh ne ma fii dugg fi di noonu waaye comme que Tafa la daa la testé essayé la ma ko ci naka nga may essayé ma ma di nga woy di nga fecc di nga def percussion tëgg ma ko nag am na lu ma ci man ak lu ma ci mënut moom mooy li ci man def ko ma dégg bi nga xamee yàlla def na mu tax sama ci woy booba sama baat baax na lu ma tase ci way maas dem si si géey dal na ko dem euh, Cheikh dem ba sow mi jël ko jël ko ndax kat dinañu mën a ci way yi ndax baatam vraiment euh, baat wu neex la yor ah ma kon ne nekk daal di kocc nekk daal di kocc nekk daal di kocc ba ma dem ñaar ma nga tëngeej fekk ma fa ma jàpp ci loxoom boole kooku Cheikh Tidiane Diop mu dugg daal di kocc seen seen bi muy dugg daal di kocc 17 la am Lamarana ma jàpp ci loxoom. Mm. fekk mu nekk centre Blaise Senghor. Mm. di def ay théâtre xale ma iri mu ñëw. ma boy ko Cheikh. Mm. Cheikh tudd ko Lamarana. yow ban rôle nga jëkk a joué Daaray Kocc. bi ma jëkk a joué Daaray Kocc. mooy opération xamb. moom la jëkk a joué. opération xamb mooy fii ma ko jógee dofe. waaw. Mm-hmm. bi ma fa jógee tamit ma dal di joué Lambi Golo. Mm-hmm. man ak Baba Faye ak Ibulaay bi ma fa jógee ñu daal may jox rolu maanaam mu joué ci Bara Saoudi man nekk ci papay ma xor jege ma jógee fa ñu yóbbu ma ci dox je ma joué fa rolu fa xamaan ma jógee ñu yóbbu ma fa tamit maa looy jooy naa la naa la jëndal kër gu dàq gi boobu fàq man laa fa doon ñëpp ami kër ma ne ko sama yaay jooy nii mais noppi dina la jëndal kër mu xàcce kaamir di ma ko dóor joge jóge fa dal dal ci apolo xanju Babylone Babylone ak ak guddi mbay ak aminta mbay mu jóge fa ñu da ñu daal may dugal ci benn rôle yóbbu ma Cheikh daal may bindal benn kayit boole ma yi fekk ñu joué benn film seulement la compte du sang pour le Sénégal ma dem man ak Ndeye muur biñ demee ñu def fa une semaine ñu ñibbisi ma ne ba léegi Cheikh ñu ne ma daaree ko ci benn def dem naa bay def caméra mm. mais ma ne non non. mais rôle yooyu nga joué ban moo la ci gën a marqué ak lu tax. ba ma ci gën a rôle. moom ci gën a marqué ban moo la ci gën a marqué ak lu tax mu marqué la. ak lu tax mu marqué ma mooy Apollo. lu tax li tax moom marqué ma parce que bi ma koy dóor sama xol toog na. maanaam dem na sax ba mbéj ma mbéj boo xam ne prévoir ñu ko. yàlla dogal mu mbéj ma. yéen est-ce que du kon rôle yi da ngeen a demoon ba def ko dëgg. ba def ko. ba def ko dug dëgg. waaw parce que dañ koy dund. parce que boo ko boo ko deful dëgg rek bon doo dem kon lu boobu moom ma ci gën a marqué. moom ma ci gën a marqué ak xanju. bon yi ci des na am marqué ñu ma. mais ci wàllu théâtre jamonoy tey moo fi nekkoon ak daaray Kocc. waaw diggante boobu naka la. waaw jamonoy tey moo fi nekkoon Cheikh Tidiane Diop ñoom ñëpp fa lay nekkoon ak Lamine Ndiaye benn. bii la publicité bi. Mhm. yàlla dogal bi ñu demee ñi nekk di nekk di nekk di nekk di def ay spectacle ba yàlla def ñu am contrat Côte d'Ivoire. Mhm. ñu amee contrat Côte d'Ivoire bi ñu ñëwee nag xam nga affaire rek ku nekk di xëccu. Mhm. ba seetaan juddu fa. léegi nag ñu daal di mer Cheikh Tidiane Diop mais daal di mer gedd bi mu toogee ñu toog une semaine kenn ñëw répétition Cheikh daal ne moom day bàyyi former groupe am Cheikh fekk fële Maodo Jege nga fa El euh, Hadj Abdoulaye Seck nga fa hmm. Lamine Ndiaye nga fa Babou Faye nga fa Dembi Faala nga fa mbay Niass nga fa Mbaye Gaye nga fa ñoom ñëpp ñu nga fa. Hmm. yàlla dem nag Cheikh nag daal di formé nag daaree Kocc daal hmm. nag xëccul kenn ku mu neex nag nga ñëw. mais looloo tas jamonoy tey. moo bañ it ba ñu ko formé. te jamonoy tey mel ni glace. sey léegi nag daaree Kocc nag dem. léegi nag ñu nekkoon jamono tey ñoom ñëpp ñëw nañu dem nañ tamit benn jamono daal di ko ci mos na problème te en vote wax laa koy wax. ban xeetu problème. problème boobu. ci problème mu xaalis la. problème mu xaalis. mooy ba ngeen demee Côte d'Ivoire. non bokkul ak boobu. bokkul ak boobu dalee ko ci. Hmm. Cheikh dafa ñëw yor xaalis. Hmm. xam nga xaalisu groupe bi la. Hmm. mu dëkk woote ño dal na ñu tant de millions ngi fi léegi li ñuy def amuñuy bagage di luyee ji ay matériel di ay di naa ànd ak kenn Sénégal Ndiaye xam nga ko. waaw naa ànd ak Sénégal Ndiaye dem France jënd ko ay matériel ñu ne waaw moo nag Sénégal Ndiaye dem France jënd ay matériel daal di ñëw bi mu ñëwee daal di teg lépp ñu décompté matériel bi. Mm. lépp mm. ay moniteur tout moniteur micro yooyu yëpp teg. ñu daal di teg installé. loo xam daaree ko moo ko moomal boppam. moo ko moomal boppam. Hmm. man sax maa nekkoon ci studio bi. day di piqué ay bande bande bu ma dee piqué Cheikh bi dem France da koy yóbbaale. te pièce bi ñu fi am bala ko waa Sénégal si daan ko ci kër si daan. Hmm. yàlla dogal Cheikh ni ma léegi comme que noonu la léegi naa la def léegi nga nekk euh, maanaam électricien daal. Hmm. maag ak Baye Ili. Baye Ili bi muy ñëw boobee parce que. ni kiye ko mabal ko Cheikh Tidiane Diop ndeysaan mu jël ko daal coach ci la jëkk a créé le quatre vieillards dans le vent Baye Pël Baye Ili Ibrahima Ñing Modou Diagne ku ci nekk bu la xoolee xam na sa pën fu mu la war man dem nañu ba samay jox rôle moom xam na sama rôle rôle baa ne may jox parce que nee na man ni nga koy assimilé. Mm. rek yaa ko man mais jàngoo jamono yooyu jamono yi ngeen di eh, lan lan ngeen daan am ci koom ci wàllu théâtre waa maanaam euh, koom-koom bi mm. demee ne noonu demeewul noonu. Mm. ndax koom-koom bi ci rôle bi ñu lay jox. parce que rôle bi ñu lay jox parce que premier rôle bi. premier rôle principal deuxième rôle principal. troisième rôle principal ba cinq yi kenn ku ci nekk sa budget nga am rôle bi ñaata minute la ñaata jour la ñaata temps la ñu def booba waa télévision ñoo ñuy fay mais pas Cheikh Yane Diop ah. waaw ndax ndax liñ ko doon jàllale télé waaw ndax liñ ko doon jàllale télé da ngay dem rek télévision ñu fay la ñu ne sa kase lii la nga jël dugal sa poche aw ci yoon wi mm. bi ñu foofu Cheikh Tidiane Diop daal di koy am problème ñooy Cheikh Tidiane daal lekk xaalis bi boobu man maa ngi dëkk kër Cheikh Tidiane Diop. jabaram école police la nekkoon di fa jàngale. Aminata Sall. nekk ak man Dakar Dakar ci néegam jox ma néeg may añ di reer di ndekki def lépp mooy futal ba mu defee des années des années mos ñoo am problème moom Aminata Sall. moo nekkoon jabaru Cheikh Tidiane Diop. bi ñu ne Cheikh daal lekk xaalis bi. Cheikh daal di bi léegi nag Cheikh daal di mer daal di mer daal di toog daal comme que la daal di ko ci ngoog yàlla dogal que motel bi mama yoroon caabi ji li mu jënd France daal di ñëw gars yi toog ba caagi Ibulaay ndeysaan yal na ko yàlla yërëm Ibulaay ak Tafa boobu comme man maa ngi centre culturel fa la nekk fa la logé mm. ak motel bagage mm. ñoom ñu dikk comme mer nañu na yow Cheikh Diagne Diop ñooy nag léegi man nañ ma ñëw gis pour ñu complice pour ma jaay ñu jaay jaay matériel bi gars yi dëkk waxa man waxa man waxa man ma leen waa d'accord léegi ñu jaay matériel bi ma ne man bu dee man day fil du fi jóge xam nga ak ni nga commencé dawet tabac tabac commencé ma xam nga di ma jéem a jaay di koy Medina nangam sangam nangam sangam nangam sangam nangam sangam ma koy eh, fil du fi jóge fil Cheikh def ma wax ma dénk kon benn fil du fi jóge ñu am voilà dañ koy jaay jox la ci sax moom deux millions wala trois millions nga dem ñibbi yaa xam man demu fan te certes de naa ko doom bi dem yam quinze cent ci la gaañu mm-hmm. kon bi ñu toogee nag ba ci yàgg Taba Diop convoqué répétition ku nekk ak lee yàlla may Cheikh yàlla da koo may doon la bu ko yàlla may ku ko ji man topp rek doo dem fan Taba Diop def une semaine gars yi répété ñu ñu xam après ndeysaan Baye bay non kii Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Dieng. Hmm. yal na ko yàlla yërëm ak Aram Dieng moom ñu daal di Abdou Diouf woo neen dem leen ngeen jubóog Cheikh aar baa ngi bëgg a soro te lu ci waay moom Cheikh mën na ko. Hmm. dama ngeen jubóog Cheikh. ñu ngi daje ak Aram Dieng ak Ahmed Dieng. ba juboo amaat. ba juboo amaat. léegi nag fi ñuy jeexale euh, aar bi ngeen doon def yéen ak euh, théâtre bi ngeen doon def ak bi am léegi naka nga ko naka nga ko gisee. waaw non xam nga euh, Babacar Mbaye théâtre bii théâtre bu njëkk ba. Hmm. da koy sedan di jooy. Hmm. wala mu wóor ni Mbaye mi jikkoom la ñu fee. booba talaata kenn du nekk ci mbedd <coughs> eh, pardon kenn talaata bu mu saan a jot hmm. dëkk bi yëpp Dakar ak Thiès partout kenn du nekk ci mbedd. ñëpp ñuy concentré wu ci daaree ko ci. kon xam nga kon loolu lu leen intéressé te dañ ci yëg gis ak yëg-yëg. daaree ko ci foofu la te daaree ko ci nekk na groupe boo xam ne théâtre bi am fii. man nangu wuma ko. xam nga du la yee. du la yee léeg-léeg da ngay sànni boo xam ne day am comédie am drame ñu boole ñaari version yi. loolu du yoon théâtre bu du yeete nag. ñu ne xaas la wut ak sañ ba rafet. Mm. mak yow ak di jaayu ak di jaayu posé ay xaaf. Mm. ay xeef mm. du loolu du foofu nañu togg toggi mu ñor te bàyyi jaayu bi ñun mos ñoo joué benn théâtre boo xam ne boo ñu xoolee day bari sañ sa bi du bari sañ sa bi du bari. jàngoo looy eh, lu may. tàggatoo li may tàggatoo xanaa di leen nuyu rek yow Mbaye Samb. di nuyu ñoom Moussa Samba ak personnel bi di nuyu tamit <clears throat> ndeysaan ñoom pen di nuyu tamit sama caméraman bi vraiment yàlla defal ko jàmm ak tawféex di yëgal nag man su ma vraiment fi ngeen nekk su ma seyoon am benn groupe boo xam ne tout le temps damay def théâtre mm-hmm. mais fii comme ko ci wax ay complexe lañu mm-hmm. souvent dama su ma koy su ma yóbbu arsi nii damay dem ailleurs mm-hmm. te xam nga fi li fii ñoom da ngay ma suba rek may def ak yow ay sketch ay sketch yu ndaw ay wax ay wax di ñaan nag Mbaye Samb gudd fan ak wér suuf ak tànga